na yàkkataan da nga non du fooyee yàkkataan mooy da nga daan tollu ci denc jabar doo xam jigéen daan ngeen baal ma rek man sama wax du lëndëm dëgg la su ngeen yeboo noppalu ci Iran benn nit la ti du changé jamais gëw ma koy commenter gëw ma dara yàlla rek mm-hmm. da nga daan xool jigéen sa awra jóg booba da ngay toll ci denc ti doo mën a denc. am déet. booba la mballu xewoon. xam ngeen mballu sësu jigéen. ba sa awratu mais am na fu ñu ko wane woon temps yi ci ci ci benn kaar. ci waaw ci tata def leen ko njàng di bu leen ko def ay kaf. théâtruma da dangeen dem ci ñuy théâtre ngeen wax leen ko. daan nga tiim jigéen sësu ko. sa ndox sa mën yu di tuuru. parce que sa xel day ne ci jigéen ti yow doo mën a jot ci jigéen booba kenn du takkal sa bopp jabar sa bàyyi la koy uutal sa bàjjan sa najaay ñooy séq kër gi ñu ne kon nag kër mii nañ ko may doomu tàntam Ayda kër yëgul tinul ñu dox ko ba mu sotti ñu defar néeg bi defar lépp ne sa jabar dana sëy si tey bul génn kër gi lii nga ci am su ñaawee sa yoon newu ci yow sëyoo ngir jigéen da ngay sëy ngir kilifteef dëgg su rafetee sa yoon newu ci léegi nag xale yi ko rafet la ñuy seet waaye gis nga taar boo xam ne fu muy mujjee yow safara la ñàqaara la ko gënoon de donc booba mballu am na sa so daan nga gis ku jigéen xoolal léegi ngay uuf jigéen ba jóg mu jóg sa kanam du yëg ni jigéen nga oofoon parce que suur nga jigéen nit ñi buñ demee ba seen jikko yàqu mënoo xëy bis boo njaalowul bu la neexee jour bu la neex bu la neex laa bëgg bàmba bu la neex rek nga njaalo yow kay yaay daw kooku nu muy mballooti nu muy yakkataani xam nga lu yakkataan da ngay dugg ci néeg xale bu jigéen bi dugg ca ron lal ba tëdd timis ngay tëdd su ndaw si dugg see booba lampi pétrole la amoon man duma ma xalel waxi mag laay wax <laughs> atum xiif bi fi la ma fekk damaa tuuti rek màgget laa nga dugg ci lal bi teel a tëdd timis ndaw si tëdd dugg si ba tëdd nga bàyyi ko ba mu nelaw nga génn ndànk yegg ci kawam daan nga yegg ci kawam du ko yëg wala nga yéeg ci kaw mu yëg ko yuuxoo la nga fëgg bunt bi tëb daw ñu dàq la nga dugg ci suuna si réer yi suñu xëyee ñu toppatoo ba xam ne diw la ñu jël émission bugaan bi waxtaanee ko xam ne mbokk la ndax yegg na ci yow nga ne déedéet ñu dëj ay bokkam ñu waxtaanee ko ñëpp trouver solution du siiw xam nga dogaale xalifa xamoo ko de dangay ne bàmba ci àll bi yéeg ci garab yi xale yu jigéen yi dañ daan dox di jaayi soow wala jaayi meew wala ñu dem luuma ja bay ñibbisi ngeen yéeg ci garab yi di leen xaar bu ñëwee ba tollu yéen ngeen cëpp song leen tëddee leen par force booba la góor daan xelam dina ci jigéen léegi xelu kenn nekkul ci jigéen yow dangay daw ñu topp la dangay daw ñu topp la boobu looloo xewoon kon viol léegi du viol yow yaa ñëw fekk si waa ji ci këram ah yooyu itam yaa ñëw kër El naan fa attaaye toog foo waxtaan ngeen waxtaan d'accord ngeen séq la ngeen séq ngeen ni daf maa violé yow kay yaa violé sa bopp loolu du viol viol dafay am force dañuy forcer ndaw si baa ñu dorogé ko gis nga dinaa la jox benn affaire moytu ko bu baax léegi-léegi gis benn pom bu ñuul fii dañ caa pikiir saafara léegi-léegi ñu pikiir drogue ci pom bi baa banaana bi baa mandarin bi baa orange bi xam nga boisson bi léegi kubéer gi kaw kawsu la seringle bi ngay def sa drogue bënn ko ci euh, euh, kubéer gi pompe ko ci bàyyi ko su ndaw si naanee ne dur yi moo xew yëgoo koon xanaa maa la koy yëgal da di dox rek mais yi xew dafa bëri furi yu bëri moytu ko léeg-léeg nga ñëw ci man ma bëgg laa def taalibe parce que bëri na ñoo xam dañ leen jibar dañ li naan liggéey ma def ko ci saafara nga naan baa ma def ko ci lekk gi ñu lekk nga nga lekkaale ko gëmma léppay am rekki xel dafa am salbul aql dafa am rekki xelu nit ba dootu ànd ak sago mu dof ci yow dañ koy def ci pom di ko def ci banaana di ko def ci xeetu fruit yëpp di ko toggaale ci ñam moo tax ku vigilaawul foo jëm ñaar moytu ko Babacar ñaar moytul bañ kumpa moytul fuqli bëgg bàmba boo bañee kumpa doo teqale ko naqar doo teqale ko xalaat parce que lu le ngay yër te da nga ca fekk lu la neexul nit ku baax du dañ du bañ kumpa bul fuqale bëgg lekk baaxul xamal la ngay lekk xam fa ngay lekkee xam la nga ca war a lekk ci nga bàyyi moo tax li may dégg léeg-léeg ñu ne diw dafa violé diw déedéet du viol ñaari mag yu d'accord ak caay-caay def seenu caay-caay ana viol ay na viol mais amu ci du donc yooyu ñuy coow naan ay association tele association déggoon naa fi sax ñuy wax ay affaire lan euh, droit de l'homme lan mooy droit de l'homme yàlla indi droit de l'homme nga indi droit de l'homme ci kaw yàlla li sëñ kër Si daan wax ne tàntu jàmbur ku ca tàntaat kay loolu la daal yow dëgg la cheikhul ko daan wax tàntu jàmbur nga ñëw tànt ci suufu tàntam sa tànt du feeñ viol bi charia tudd mooy viol droit de l'homme bi alquran tudd mooy droit de l'homme mooy an nafsu bi nafsi ku rey yàlla ne rey leen wal juróoyu xisaas ku jam jam leen ku tuur bët ñu tuur sa bët ku dagg tànk ñu dagg sa tànk ku jam nit ñu jam la ku rey ñu rey la yow sa yaay di la xaar ëmb la ëmb bu métti wasin la wasin gu métti nampal la nàmpal gu métti nga war sa gannaaw gu yaay ay yoonu yoon mu boot la nga génnee foo xam ne ca kanamam nga la awra ni mu suturaaloo nga génne ci bunt boobu ñu bënn sa dënnu yaay nga nàmp ci weenam ngay kabine muy raxas ngay saw muy raxas seetal génnee nga tax yow xale bi ñu dem hôpital sage-femme yi wër yaay jaaxaanal ko ci kaw taabul ji tas séram say moromi jigéeni ndey gis sa awray ndeytu yaa tax gis sa awray ndeytu yow doom yaa tax war nga boo màggee masawu ko te loo man teral ko wa bil ni ihsaanan nit bu wóoloo yàlla xam yàlla day fàtte boppam nit su fàttee boppam fàtte yàlla du dem moo tax ñooñu sos seen association bëgg bàmba loolu taxawul ku njaaloo dañ lay dóor benn sikk nekku ci nga ëmbal sa jarbaat nga ëmbal sa doom nga ëmbal sa sët ëmbal ëmbal la rek waxuma sa ëmbal waaye nga njaaloog moom boo dee bàyyi dañ lay rey ndax am nga jabar dañ lay rey waxuñu nag dof dof moom dof la dof du tax ñu yàq biir déedéet dañ fay bàyyi doom je te éliminer àtte bi dañuy bàyyi doom ji mu dund ñu éliminer àtte bi ndofa ko teg ñu njaaloog moom moo tax kenn du ko dóor kenn du ko rey moo tax dañuy éliminer àtte bi mais bàyyi fa doom ja ñu neen woy bàyyi ma ko ëmbal ak daa dof ñu ëmbal ko wala ñaari dofa ëmbala ñaari dof ni ñuy xamee njaalo bay ëmbalante yow yow dof nu muy xamee njaalo ay caaxaan la ndax yéen ñii fi toog buñ suuloon seeni ndey dangeen juddu question bi leerul ah moo tas daje ba yow aboo jëli lay wax ak yéen gu pon ponkal yi toog est-ce que bu ñu suuloon seeni ndey dangeen juddu bàyyi leen xale yi juddu ñu tàcc ko mu jël ndam la ñu bañ ko kuñ suuloon si ay nuy juddoo kon nuy suulee ay jàmbur ay dañuy rey xale yeeg dañuy def képp ku nangu ñu rey xale ci yow su yowmal xiyaame ñi yàq biir ñépp yàlla de yëkkati liir bi ci kaw def ko nii ne ana Babacar ngeen maa ngi mu ni leen liir bii de yaa yaa fayoon congaan mu médecin congaan mu dindi biir bi yaag mëti mii ma laaj leen liir bi nu mu def bangeen ngeen ko wa idal mawudatu suilat bi ay dënbin qutilat man moo waxi tappale alxuraan laay wax seen caaxaan yi baleen ko bu leen ànd ci loolu kuy jullit lànkal ku dul jullit sax lànkal loolu dafa yenuwul maanaam day tax caay-caay gën a bëri moo kàppoot yee yem rek kàppoot yi fi wuyu la rek góor nu muy takkee kàppoot yow yoroo jabar yoroo dara nga monte sa kàppoot dem wax ak jigéen nga njaaloog moom ñu naan wéy boo ko monté day tax kenn du ëmb plastique la kàppoot plastique la dafa rattax mën yu dafa rattax ah awra bi dafa rattax mu tuur ko ci biir est-ce que mënta fëll ci kaw moo tax ñaari ñi koy jëfandikoo bu seeni gel ëmb ñu ne la ëmbaluñ la parce que kàppoor laa jëfandikoo mais c'est faux leen ci li ngeen di wax ci alxuraan ihdina siraatal mustaqim yow yaay ñaan jub ba pare jubadi foo ko teg yaa ko biiral nañ la duma boo amee jabar ñu rey la soo amul jabar ñu duma la ndaw si ñu biiral ate atteem ndaw si ñu biiral biir ak bañ a biira ceem gis nga lii xool leen yéen caméraman lii mooy awra jigéen par exemple par exemple bopp bii mooy bopp awra góor man jàngalekat laa mm-hmm. Mm-hmm. man damay jàngale mm-hmm. lii mooy bopp awra góor lii mooy awra jigéen gis nga boo sëy jigéen sa bopp awra yem fii ci bunt bi àtte nañ la àtte njaalo soo amee jabar dañ lay rey soo amul jabar ñu dóor la téeméer yar amul mu ba ca biir déedéet fii rek maxibul xasafa char fiqo ko bind maxibul xasafa bopp sàkkara rek moo dugg ci biir awra ndaw dañ bu dee am nga jabar dañ lay rey soo amul jabar ñu dóor la téeméer yar kon biiral nag lu muy jëriñ mooy ponkal mi nga naan ma lan biiral mooy ponkal mi ni ñu bàyyi caaxaan ay avortement fii ay yàq biir fii lu tax ngay yàq biir man su ma la doobee bëgg la mais la ma lay ëmbalee ma takk la am déet dëgg la man damaa xamul lu xew di biiral doog a takk loolu luy ndeyam